ndeysaan cey papis papis général a ngoongu hoho cey yàgg maar xool gaay gaay dañoo bëgg papis gaay yëpp a ngi yëngu cey Papis ndeysaan yàgg maar yaa ko seen léegi mu wàcc feej lambi simple bu neexee kii bokkut na ci ñu ko neexal mën naa yëngal ab géewu day làmb lamb papi général doomu séréer piir bu sëñ Modou Kara Kara maa yaa ngi si jàmm sant yàlla papis taami li réew mi la na mon ah? waa Sénégal ñoo la na mon wala waa lamb dañ maa na mo moo dama ñam tuuti rek li nga fecc nu mu tudd. Ah? li nga fecc nan la tudd. curoo curoo. mais ci loolu. waaw may sant yàlla may sant yàlla bu baax a baax. mais Papis daa bàyyi lamb. maa ngi lamb léegi Papis sëriñ la. Papis sëriñ la. léegi sëriñ la. lépp laay gis. dewuma France. waaw. dewuma fenn. dewuma Sénégal. sama gré France. fi naa toog te ku ne laa gis baaxul waaw maa ngi sama kër toog. yaa ngi sa kër rek toog di gis bagage yi. gars yi dañoo am ñëw. ba mbakke mbakke yi. mais loolu foo ko jël da nga koo donn da laa feeñ wala. nam ko moom mooy yoo xaar bu ma am 40 ans. soog ma koo jox. damay nekk xale. ne ki ma màggee day am. ñu tax sama sixième baaraam yi. affaire la woon mosuma dem laa bëgg ma ko ak luy am bu ma lay gis fii dañ koy gis bu baax waaye ci combat suba bi rek de. nga wax ci combat xam nga bu ma lay laaj. kooku yéen a bokk parcelle muy Modou loo digganteem ak Ama Balde. waaw ñeme ko ma wax loolu. lu tax. ah lu tax am naa lu luy xew waaye dama ko wax léegi. xam nga ko. ñoom ñëpp laa xam ñoom ñaar ñëpp laa xam. loolu ma mën a ñoom ñaar. Hmm? loo ci mën a wax. lamb ji am na sens de. am na sens. na sens. lu tax nga wax loolu. Ama Baldé. waruñoo mbërëg Modou Lo heure bii. waru ko na bërëg Modou Lo heure bii. wan loolu yow. calcul lambo. calcul lambo. ci mystique wa côté mystique wala. non Ama waroon na jaar ci kii Ama waroon jaar feneen. soo ko ñam roi des arènes. yàlla ko sens. ba jaarul a téeru waxtu wala si rek ah. kon combat bi baaxul pour yow. ah. combat bi baaxul. Ama Baldé. ndegam yàlla moo ko may saas. warul woon àggul woon fu mu war a bëri roi ku xam la am laa la wax de yàlla bay ko chance ba mu rek roi des arènes ah. Modou Lo ndax neex naa jàpp mystiquement. ah. Modou Lo jàpp ko mystiquement yomb na. daa ñeme dépasse dépasse Modou Lo Ama Baldé combat bu ñàkk fulaak fayda lay doon naa ko wax jël ba lay yomb dóor mu daanu wala lan loolu la mun a ne mun a waaye combat bu ñàkk fayda la ñàkk fayda lay doon waaw dama wax nag dama wax kii wala kii waaw bu ñàkk fayda la ñoom ñaar guddi yi kan moo gën a nekk ci combat bi ñoom ñaar guddi yi. dama bëgg nga wax Papis. ah waaw. non wala dara rek. mais wuyu ma. Papis sax ñuy yàgg maar. ndeysaan. maa ko saa bopp maa ko moom. lii mooy lan. yàlla ma ko jox. te mu ci bokk bokkuma mbër yi dama juróo ci alal dama si sama kër dem bitim réew ma ne lamb rek ana mbër yi dama bëgg dimbali sama yaay dama bëgg dimbali sama papa man dama bëgg nag waa sama kër am ma dugg ci lamb benn mbër bu Sénégal kaw ak géew ka yab ma ku ma yab ma mbër ma tooñ dootu ko defati wax nañ ko ñoom ñëpp. Mbaye lu muy wax ni yaakaar naa ko yaakaar naa ko moom maa toj ndax laa mujjee jar na yaa ko yàq maa ko montal bu cher la maa ko yàq lamb déggal ni lamb fit entraînement ak galaaj moo koy def bul tuuti ma xool waaw ma yëpp de kaw ak ku ma ma fañ la. kontaan ci yow. fii la bay. kontaan ci yow. damaa saf xorom saf suukar saf poobar saf kaani. fii la ñu